ko war a jàppale ci mu mën a jaay produit am te jaay produit am li ko indi rek mooy fexe ba ñun li ñuy consommer li ñuy euh, li ñuy li ñuy consommer ñu produire ko et pour et consommer li ñuy produir fexe ba suñ production yi euh, matière première bi du génn bu wala mu ñàkk bañ a génn euh, du génn ñu transformer ko koy jël matière première di ko yóbbu réewam di ko transformer di créer ay emploi ci biir kon ñun war nañ ko mën a def da ngay xool Chine pour créer emploi lan lañ def dañ ne gerte sénégalais buy ñëw Chine du fay douane parce que matière première bi lañ soxla mais boo defaloon gerte sénégalais fii def ko diwlin yóbbu ko Chine dana dugg mais da fay douane parce que daf lay wax ne la yow ñeneen ñoo ko transformé loolu nag moo am ci lépp pour pourquoi pas ñun ñu fexe ba nga xam ne nii lépp bala ñu ko exporté ñu ñu transformé ko fii loolu mooy indi suñ doom yi toog fii ba ñu dugg ci gaal yi